troisième combat baa ngi noonu. mi ngi nii toog Ousmane Diop. waaw moo ko bëree. Hmm. ak Ousud. ah Ousmane Diop ak Ousud. waaw Ousmane Diop mi ngi nekk écurie Bac Seras. Ousud hmm. mi ngi nekk Yaraax. gis nga li la wax ne rek prise bi da ko da koy da ko waaw gis nga mu ngi waa ji buddi ko. waaw parce que tànk baa fa des. waaw xam nga bëri sooy def action. bul ne ma def ma bañ a def ma bañ ak ma a def boo hésité rek dem. quatrième combat baa ngi noonu.